salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ñoo ngi ci mois de mars ay xew-xew yu bëri nag jaar na fi mais man bi ma gën a intéressé mooy yi nga xamante ni dañ ciy sargal ah, suñu jigéenu Sénégal yi maanaam ñi nga xamante ni surtout sax dañuy yëngatu ci wàllum xarala yu bees yi alors ci loolu nag ci lu gën a yaatu soo xoolee suñu jigéeni Sénégal yi. li ma gën a frappé si ñoom mooy seen jom seen jàmbaar seen fulla dinay wax sax ne saa soo yeewoo ak lu mu teel teel teel teel yaa ngi leen di gis ci transport yi yaa ngi leen gis ci liggéey yi yaa ngi leen gis ñu ngi ci ay activité ak heure boo mënti jog rek yaa ngi leen gis ñu ngi dang-dang yi donc dañoo am jom am fulla am fayda ñoo ngi ci marché yi ñoo ngi ci tool yi ñoo ngi ci association yi ñoo ngi ci bureau yi ci ministère yi ñoo ngi partout di daan seen doole di liggéey et je pense que ñambar googu ah, nekk si ñoom xëyul rek nekk si ñoom quoi mais dañoo am ay euh, ay nit yoo xamante ni maanaam suñu ay maam yu baax yoo xamante ni ñoo jëmbat loolu si ñoom tey jii nii bañ mel ni ñu mel ku ci mel ni maam Astu Janxa ku ci mel ni Soxna Jaara Buso ku ci mel ni maam Fadwa Fawad Wele maam Kumba Ndooy Aline Sitoé Diatta euh, waa jigéenu Ndeer Seyda Mariam Niass ak ñu bëri bëri ñoo xamante ni dañoo inspiré suñu jigéenu Sénégal yi ba tax euh, ñu mel ni ñu mel ni ñu mel nii tey quoi. ak ci lu mu munti doon nag ak ci lu mu munti nekk euh, suñ ci defee euh, seen fulla ak seen fayda rek da ngay gis ne ni résultat day génn alors loolu moo tax na tey ñun aussi munuñoo bañ a ñàkk invité euh, jigéen ñi ci suñu Wolof Tech bi pour waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ci lan ci seen jaar-jaar ci seeni projet parce que yaakaar naa ni loolu war na nekk loo xamante ni day inspirer suñu rakk yi suñu doom yi suñu sœur yi nga xamante ni euh, ñu ngi ñu ngi fi nekk Sénégal euh, comme ni nga xamante ni ñii nii tey suñu lion yi euh, suñu maam yi inspiré nañ leen ak suñu yaay yi inspiré nañ leen inspiré nañ leen ba ñu mën a toll tey fi ñu toll nii tey donc nag tey ci suñu épisode wolof teg bi nag dañuy dalal ay invités yoo xamante ni yu am jom leen maa ngi ni wooyee ay lion laay ni wooyee ñoom ñëpp ñu ngi ci tanière bi tey ku ci mel ni Franceline Daba Dione nekk directrice technique bi wuti ko mais tamit jiite lépp lu jëm ci wàllum communication euh, ci FESTIC maanaam association femmes éthiques au Sénégal Franceline ñaa nuyu naa la dara la jàmm ci podcast Wolof Tech merci beaucoup merci euh, Diago merci ci invitation bi je suis en tout cas contente euh, de participer euh, bokk ci pour le bi nga xam ne yaa ngi koy organiser merci macha allah macha allah alors suñ deuxième invité bi moom tamit je pense que min na podcast bi euh, moo ngi tudd Thiaba Diop euh, nekk ingénieur développeur web mobile alors Thiaba nuyu nañ la nañ la dalal ak jàmm ci Wolof Tech. nuyu naa leen naa ñëpp maa ngi lay remercier aussi ci invitation bi ñu ma defaat. macha allah ci podcast yow moom min nga fi min nga min bi bi mooy sa troisième fois <laughs> invité bi moo ngi tudd Anta Dieye. moom aussi nekk ingénieur étude et développement bokk tamit ci kuréel boobu mu naan FESTIC Anta nuyu nañ la. maa ngi lay fay bu baax a baax Diago di nuy aussi les Lions sama sœur yi ma bokkal émission bi di am contentement aussi ñëw. Mhm. pour partager ak yéen ci tout ce qui est ak les femmes au Sénégal. merci allah alhamdulilah alors suñu beneen invité bi nag moom ngi tudd Fatoumata Caroline Ndiaye nekk ingénieur informaticienne commerciale immobilière ci cabinet bu ñu naan CFI euh, nekk aussi euh, nekkoon aussi je pense coordonnatrice Jigéen Tech Up euh, xam naa yëpp dinañ ci waxtaan ci biir après Fatoumata nuyu nañ la. ñëpp. Euh, nuyu naa leen nuyu ñëpp ñi fi nekk ak euh, bon man la Fatoumata Kaolé Ndiaye. macha allah macha allah kontaan naa bu baax a baax a baax a baax. alors tey comme ni ma ko waxee léegi sànq rek ay lion lañu dalal ci podcast bi fas yéene waxtaan ak ñoom ci seen jaar-jaar seen gis-gis ci wàllu xarala yu bees yi. naka la jigéen ñi war a gën a mun a euh, lan la naka lañ leen gën a war a mun a dugalee seen loxo ci biir euh, technologie bi pour que ñu gën a fës mais aussi euh, juste benn parenthèse mais est que xam ngeen ne premier premier programme programmeur bi njëkk ci àdduna ci monde informatique bi jigéen la est que xam ngeen loolu déjà. waaw. voilà ça c'est hyper intéressant parce que moi je l'ai découvert il y a pas très longtemps et c'était c'était vraiment top top top franchement ñu dem directement donc suñu épisode tey bi maanaam ah, des lion de la tech sénégalaise. alors premier laaj bi nga xamante ni tey euh, bëggoon naa ñu waxtaan ci déjà avant sax ñuy dugg ci question et tout ça li njëkk je pense que mooy fexe ba euh, auditeurs yi nga xamante ni ngi déglu ñu xam ñan lañ invité tey jii nii donc Daba est-ce que mën nga ñu wax un yow ci sa jaar-jaar. Euh, fan nga fan nga jaar ak aussi euh, ci yan activité ngay yëngatu actuellement ci euh, xarala yu yi. ok euh, merci beaucoup merci si laaj bi donc man maa ngi tudd Franceline Daba Dione. Mhm. sama parcours nag gudd na mhm. guddul. Mhm. maa ngi jànge Casamance. à Sédhiou précisément. fa laa jàngee ba troisième. ma dem Joal. Mhm. Euh, Joal laa amee euh, BFM euh, am fa bak jóge Joal dem Thiès nekk Thiès def fa licence en LMIO mooy licence en management informatisé des organisations jóge Thiès dem UGB def master 1 ak master 2 en système d'information donc ba ma UGB. Euh, ñëw rejoindre benn entreprise bu ñuy naan Link Partners en tant que développeuse web et mobile donc fa laa nekk de 2013 à 2015 donc entreprise bi dafa amoon benn projet en interne bu tudd Wuchiko donc ñu lancé ko en 2015 donc bu ñu ko lancé en 2015 ñu choisir ma fa ma nekk fa directrice su technique donc depuis lors maa ngi fa ba léegi di euh, diriger. les euh, projets euh, tech les projets yu mel ni euh, plateforme Forum Jeunesse Teranga Tech des sites internet yu mel ni site Oneka site Fonsis yooyu yëpp maa ko dirigé récemment dirigé aussi projet guichet jeunesse guichet jeunesse bu consortium jeunesse Sénégal bi nga xamante ne lancé guñ ko officiellement mais c'est en cours donc plateforme yi ubbi nañ ko Euh, instant bi ku bëgg opportunité toutes les opportunités mën nañ dem foofu gis ko hormis loolu dirigé aussi Wuchiko mhm. plateforme Wuchiko mhm. ak yeneen yeneen i plateforme actuellement loolu laa nekk en même temps euh, nekk entrepreneuse mhm. euh, bokk ci ñu ñu créer Autonomia ah. Autonomia ah. ak Smart Issue ok ok ouais. ok je vois intéressant ah, mais aussi am na festik bi aussi yaa ngi ci festik bi. oui oui effectivement. instant bi maa ngi nekk euh, présidente euh, comme bu festik. Mhm. festik mooy association bi nga xamante ne mooy regrouper l'ensemble des euh, des femmes. Mhm. mooy jigéen ñi yëngu ci wàllu euh, xarale yu bees yi. ok macha allah. donc maa fa depuis yàgg na. Mhm, mais dañ ma fa jël présidente de la commission comme en deux ça c'est cool ça je pense que ci discussion bi sax dinañ gën a waxtaan ci euh, festique boobu ak li nga xamante ni mu ngi koy def euh, dinañ ci gën a waxtaan ci biir incha allah. incha allah mais jaar-jaar bi am na solo. <laughs> alors soxna Thiaba lan mooy sa jaar-jaar ak yan activité nga nekk actuellement. waaw man sama jaar-jaar bon euh, man la Thiaba Diop ni ma gën a xamee ci réseau mooy mystique. et voilà donc euh, ma man ci euh, euh, nu mu tuddati université Amadou Hampâté Bâ jànge ba ma amee bac ba pare au lycée Demba Diop de Mbour donc j'ai fait cinq ans à l'université Amadou Hampâté Bâ def naa fa juróomi at après loolu ma ma dugg ci benn entreprise bu ñuy woowee Volcano foofu laa commencé sama jaar jaar def nekk naa fa développeur full stack dañ doon def développement mobile développement web mhm. développement backend mhm. ak def coaché aussi foofu tamit mhm. quelques étudiants en développement logiciel donc voilà après Volcano ma jaar euh, fu ñu woowee Marodi foofu def naa fa développeur euh, mobile laa fa nekkoon seen application Marodi actuellement en ligne euh, moom laa def foofu noonu Euh, ba ma paree Marodi def naa fa ñaari at après ma dem euh, entreprise bu ñuy woowee Gewot foofu yàgguma fa trop mais def naa fa benn euh, application boo xam ni genre réalité augmentée lay def. Hmm. réalité réalité augmentée mooy par exemple soo utiliser sa téléphone tal caméra bi. ngay gis dara loo xam ne existé wul en fait day mel ni loo xam ne existé wul si réel vie bi mais day da nga koy gis si sa portable si mhm. Mhm. voilà macha allah loolu laa fa def mhm. après dugg ADIE euh, defar seen application Sénégal service qui est actuellement aussi en ligne voilà ak benn application boo xam ne visioconférence bon comme euh, voilà laa laa fa def actuellement je suis euh, maa ngi si benn entreprise euh, bu ñu benn BNB en tant que aussi développeur mobile maanaam maan daal soma jaar-jaar yëpp développement mobile la à part ça aussi à part ça aussi maa ngi bokk si communauté jigéen si TIC buy regrouper euh, les jeunes filles xale yu jigéen yi nekk ci ci technologie bi. ok des fois je fais aussi maa ngi def aussi ay ay sessions de mentoring genre j'essaie d'accompagner des étudiants. Euh, sur le développement ci ci développement logiciel récemment j'ai récemment kii naa mentoré naa ay étudiants benn programme Gojamba euh, six étudiants boo xam ne dañuy dañuy dañuy dañuy jël benn projet de à Z on essaie dañuy jéem a euh, réaliser application boobu noonu donc ku nekk ak sa tâche ñi développeur mobile lañ ñi développeur web ñi développeur backend donc dama leen doon suivre pour euh, réaliser benn application et c'était c'était bien donc en, général et je m'intéresse aussi au damay mm-hmm. intéressé aussi si entrepreneuriat comme ouais. Ah. Caroline aussi elle m'a formée et ce genre de choses là. Okay, okay. en général loolu mooy sama parcours. macha donc parcours bi am na solo trop trop trop surtout soutien bi nga xamante ni yaa ngi koy apporter ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci suuf parce que je pense que boo xasee boo demee ba à un certain niveau nga am yenn expérience yi dafay baax nga dimbale ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci suuf mais alors euh, damay dégg ñu ne wax jigéen tech jigéen ëpp jigéen euh, tech ëpp en fait bëri na yu may dégg jigéen ci tech ak yu demee un bon je sais pas différence bi lan la wala yu bëri la wala benn bi la alors après dina ci discuter xam naa ci biir rapidement incha allah alors Anta yow aussi développeur nga et dafa mel ni sax gis naa ci sa LinkedIn et tout ça développeur Java yow sama mbokk nga quoi mbokk développeur Java avec Spring sax <laughs> surtout quoi <laughs> Anta ziar nañ la lan mooy sa jaar jaar euh, ak ak lan nga ñu mën a wax ci sa jaar jaar. waa d'abord di la remercier encore une fois par invitation bi. Mhm. déjà su ma gisee ces belles dames seen présentation je me dis que voilà. Euh, monde baa ngi avancé parce que jigéen ñi am seen carrière bi nga xam ne voilà c'est c'est intéressant. donc euh, man Anta Dieye la. Mhm. donc je suis Saloum Saloum. donc ah, euh, sama <laughs> de la commune de Wakunguna village bi ñuy wax Koutango. donc ah, comme niñ ko waxee waa hmm. Koutango laa defee sama primaire après bi ma amee entrée en sixième comme amutoon sem fallait que ma dem waa Koungheul jàngee fa donc foofu laa amee sama BFM après waa Koungheul ma replier ñëw lycée Valdiodio Ndiaye en 2009 parce que 2009 laa am BFM. donc ñëw lycée Valdiodio Ndiaye fa laa defee sama seconde ba terminale en 2012 ma am bac et après mon bac en 2012 si lañ ma orienté au département de maths mathématiques physique informatique de la faculté des sciences université Cheikh Anta Diop de Dakar donc foofu laa defee première année en MPI deuxième année en MPI et donc foofu euh, idée bi mooy après la deuxième année soit danga ngay def maths pure wala physique pure wala informatique donc informatique aussi pour nga def ko y a des conditions à à à remplir avoir au minimum de douze et autres yaa euh, ngi ñu déposé donc on nous a pris si lañ jël dem def branche purement informatique en donc 2015 la ñu am suñu licence en informatique ci même faculté bi département mathématique informatique 2016 ba 2017 la ñu def suñu suñu master 2 donc en janvier 2018 début année 2018 laay soo ko soutenir sama master 2 en informatique tout ce qui est système d'information réparti donc bi may def le master 2 dama ko doon allier même temps un stage au ministère Euh, du commerce bu Sénégal donc foofu laa defoon sama stage si sama thème moom mémoire qui était l'automatisation des Euh, de suivi et évaluation du budget et programme du ministère du commerce donc fa lañ ne après soutenir en deux en janvier deux mille dix huit. Mhm. jël benn pause noppale ko comme soutenir ñeneen ñu <laughs> ingénieur leen fale ko. ça c'est normal <laughs> donc voilà après nag euh, si la Atos fi may liggéey actuellement ñu ngi nekk en partenariat ak euh, université yu bëri Sénégal notamment Fac Science donc si la ñu ñu contacter suñu waa département ñu jël suñuy CV yóbbu ko Atos mhm. en janvier boobu noonu boobu ñu ngi ci plein soutenance donc si la ñu woo entretien et tout ça donc on nous a pris si la ñuy wax na ñu mois d'avril di ngeen commencer stage donc il fallait que ma ñëwaat Atos beneen stage ak contexte stage ma defoon ministère du commerce dans six mois la waroon doon du moins mais bon en cinq mois si la ñu pare après presque ñun ñu jógee woon faculté bu foofu yëpp si la ñu recruter en Atos à Atos donc depuis septembre 2018 maa ngi Atos en mm. tant que ingénieur études et développement mm-hmm. euh, donc j'ai travaillé sur pas mal de projets yoo xam ne en interne la à Atos mais au mois de mars 2020 si la ma Atos jël 2019 du mois si la ma Atos jël déploiement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest la BCEAO au siège en tant que consultante en informatique donc falaa nekk foofu carrément j'ai fait presque deux ans là parce que septembre passé laay soog a jeexal sama mission foofu deux ans et quelques okay, voilà ma fa paree sama mission après comme nee nga développeur la tout foofu aussi développement laa fa def mais après septembre octobre aussi si la ma atos jël a waat ma <laughs> ci projet bu nekk ni actuellement à Bordeaux avec euh, groupe mhm. Accor Hôtel donc depuis mhm. euh, octobre deux mille vingt et maa ngi ci projet Accor. ah c'est bien c'est bien c'est c'est bien récemment laa ñëw rejoindre leen nii à à Bordeaux. donc côté euh, formation côté professionnel c'est ça par rapport aussi ak association yu nekk comme Francine l'a dit ñu ngi festique donc maa ngi moom ñoo nekk ci cellule com bi même si moom mooy def liggéey bi <laughs> alors euh, aussi euh, kii wax na ko euh, Thiaba wax na ko. Mhm. man aussi si jigéen ci TIC laa bokk surtout man ak mes collègues. Mhm. Adama Bobo Seynabou ñun ñoo nekkoon promotion deux mille deux mille dix sept et on faisait partie si si lauréats yi. ok voilà loolu la côté sinon certification je suis certifié programmation en HTML ak JavaScript CSS. Mhm. aussi une attestation de suivi sur la sécurité numérique Panomara. bi nga xam ne c'est délivré par euh, la France aussi un certificat en numérique et droit international des droits de l'homme organisé par la fondation René Cassin au mois de septembre dernier et une attestation de formation des volontaires pour l'autonomisation économique des femmes pour l'autofinancement organisé par le réseau des communes communauté okay. autofinancière du Sénégal. Okay. Voilà, participation aussi à la 13e édition du Forum mm -hmm. sur l'emploi organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal. Ouais. En quelque sorte, c'est ça, formation sur tout ce qui est expression orale, Mhm. leadership voilà communication en résumé daal. waaw loolu loolu mooy c'est ça. non mais c'est mhm. hyper important c'est hyper important xam naa damay bàyyi ba Fatoumata wax ba pare ma après ma wax leen rapidement lu tax may euh, def ma bëgg ñu def présentation parce que c'est hyper important. alors rapidement Fatoumata lan nga ñu mën a wax yow tamit ci sa ci sa jaar-jaar. en tant que informaticienne euh, ak tey jii ci yan projet nga nekk actuellement te euh, voilà te yaa ngi bokk ci euh, gaynde yi quoi voilà ci tanière bi quoi <laughs> alors Fatoumata <laughs> ah déjà man damaa damaa sax tiit en fait je suis éblouie de du parcours de de mes uh-huh. ah, mais uh-huh. man Fatoumata Caroline Ndiaye laa tudd. Uh-huh. j'ai eu mon bac en après quatre ans. que mhm. j'essayais d'avoir may jéem a am sama bac quatre ans quatre fois la def sama bac mais j'ai mhm. jamais laissé tomber dama doon wax ne mën naa ko def mën naa ko am ba mhm. pare comme es laa nekk série scientifique ñëpp dañ ma doon wax naan demal série L demal série L vu que yow da nga ay matière littéraire yi ma ne que man série scientifique la bëgg a amee sama bac ba pare moo ëppoon ay débouché buñ la ko daan expliquer dañ naa la moo ëpp débouché si ngay mën a nekk docteur si ngay mën a nekk mhm. lii. Mhm. ma doon jéem ba quatrième année bi si la am sama bac. léegi bi ma amee sama bac STM laa jàngee ma dem mm, bon orienté woon nañ ma université amoon naa bourse sup info aussi pour def informatique euh, mais comme dama déposé woon euh, inscription France sama papa mhm. doom day dem France <laughs> léegi bourse bi ñu jox ko ci ki toppoon ci man. Uh-huh. jox ko ki toppoon ci man. déjà boobu perte naa ko mm. madame aw ma visa. léegi nag ma toog sama papa ne ma comme biologie lañ la euh, orienté demal nga def biologie ma dem université premier jour. Mm. ma ñëw toog mu ne mm. ma lan la ma ne ko jàngatum bàyyi naa jàng. par la suite nag. non mais <laughs> biologie bi quand c'est que coono boobu laataa ma doon dugg si biir université bi affaire yi rëmb ay en plus dama gàttoon tànk euh. ay tànk dong laa doon gis si biir université bi <laughs> léegi may gunge sama benn mm. copine ESTM euh, e muy inscrire ci laa ne ma ne ko looy def mu ne informatique ma woo sama ne ko inscrire ma man tamit informatique laay def c'est venu comme ça euh, après aussi si kii bi laa jàngee au fil du temps j'ai j'ai commencé à parce que man fu ma dem góor ñi laay àndal léegi bi ma demee ma ànd ak ñetti ñu góor kenn ñoom ñëpp euh, développement la ñuy def si la def fës koo jot ñu ne présentation dem présenter benn sit site web bi ma présenté nag comme man damaa bëgg waaw góor ma gis ñu naan euh, Ibrahima Diédhiou journaliste RTS moo fa nekkoon mu ne waaw góor doo nga présenté benn jigéen doo nga fi nekk di ma félicité ça m'a encouragé daa ma encouragé ma continuer di développer di développer di développer mhm. ba licence léegi mhm. licence bi bi ma defee licence ba pare si la am jëkkër après ma am doom mais xale bi saa yoo mhm. demee comme tout le temps yow guddi gi nga daan tàmm di liggéey si lay calme et tout ça te bi saa yoo demee ba concentré wu mu ñëw tëj ordinateur bi man ma commencé nag di virer <laughs> di virer ndànk ndànk ouais, ah, ouais, vers d'autres gis ñu may tout le temps voilà tout le temps saa yu ma mm. postuler au ñu jël ma poste mm. informatique dañ may rediriger si poste euh, si département marketing bi noonu laa def mm, may première année laa commencé liggéey nekk Philip Morris ba 2016 may jàngale en même temps dama daan wàcc da ngay yeewu 6 heures du matin dem euh, liggéeyi 17 heures nga dem jàngi par contre man ma yokk si ay cours mandarin cours mandarin su ma defee cours mandarin bi e en face établissement université su ma defee foofu ba pare dix neuf heures heure de la pause ma dem continuer sama master bi bon noonu laa def ba am sama master en talent informatique administration réseau génie logiciel après Club Maurice maa ngi fa occupé département euh, si département de SUP laa nekkoon ak euh, business intelligent ma jógee foofu dem euh, JVC Electronic Corp en tant que web marketing. Mhm. web euh, web commercial en ligne. Euh, di def administration site web bi gestion base données ak approvisionnement. ma jógee foofu dem CMA CGM. pour mhm. di def ay benchmarking si environnement concurrentiel bi traitement des données analyse du marché organisation équipe commerciale beeg yooyu. Euh, après tamit ci la ci lañ may jëlee comme chargé des relations partenariales ak développement web base de données beeg yeeg plateforme yooyu yëpp parce que man je même buñ ma jëlee directement marketing base bi informatique la parce que tout day am dañuy profito dañ naan ah comme def na parcours informatique euh, tu vas nous aider à mhm. déployer notre plateforme et tout ça instant yi nag maa ngi cabinet foncier immobilier en tant que commercial euh, di def ay prospection visite aux clients conseil clients yi ba pare di gérer depuis 2013 mooy premier hub de PAM mm, boo xam ne dañuy euh, dem ci établissement yi di dem si région yi di former xale yi di former entrepreneur yi dañuy doon organiser ay coding camp mooy comme ay euh, Sacré-Cœur collège Sacré-Cœur organiser woon nañ ko pour xale yi pendant les vacances pour ay dix jours quinze jours di leen former si euh, pour ñu surtout école par exemple di leen former si aw euh, of code bon euh, loolu la ñuy def en partenariat avec l'ambassade des États-Unis l'OIF j'ai eu à si OIF on a eu à partir en Égypte mm-hmm. pour benn concours mm-hmm. pour Afrique on a été je pense là troisième en Afrique euh, ouais, con euh, waa Espagne état d'Espagne bi mooy bi euh, cabadu léegi ñu jël ma en tant que formateur ma leen di former ci ay numérique euh, nouvelle technologie leadership genre yooyu ñu doon former une quinzaine de sénégalaises lañ leen lañ doon former ak quinzaine d'espagnols ñoom ñoo ñëwoon après ñoom bi paree ñoom caba dañoo dem Espagne pour jàng si ñoom tamit comment ils par rapport si robotique yeeg yooyu. Mm. bon euh, mm, c'est actuellement aussi je mm. suis à l'AFS qui euh, AFSEC mooy euh, nan laa koy waxee sax association des femmes pour la promotion des mm-hmm. sciences et des technologies au Sénégal AFSEC Sénégal mi ngi existe depuis vingt ans association bi ah maintenant nee na commencent à et âgées c'est des femmes yoo xam ne ay professeurs mhm. euh, <laughs> sciences de la terre SVT lañu woon ñoom ñoo doon mën a combat léegi nee nañ elles son âgées dañoo bëgg nouvelle mhm. la moi ma nekk seen secrétaire général euh, mhm. waa instant yi daal loolu lañ loolu en somme loolu la ak tamit Afrimat bi caba bokkoon maa nekk point focal bi fi Sénégal di euh, coord di coordination bi bon je pense que c'est ça ak entrepreneuriat bi may def di jaay samay nokos yu yëpp daal yaa <laughs> waaye ça aussi am na solo quoi parce que je je vois que ne bokk na ci ay questions yoo xamante ni bëgg naa ñu waxtaan ci euh, voilà et je pense que tey jii nii li tax ma euh, préféré ñu def déjà même bu fi émission bi yemoon fii sax je pense que c'est bon déjà parce que en fait li tax ma préféré loolu c'est parce que émission bi li tax ma def ko sax mooy que ne pour fexe ba. suñu sœurs yi ak suñu rakk yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci suuf ñu xam ne au moins Sénégal euh, jigéen ñi tooguñ tu am na jigéen ci xarala yu bees lay wax nag quand même euh, am na fi ay jigéen yoo xamante ni ñu ngi góorgóorlu di def ay affaires yu am solo il faut que ñu ko au lieu que ñuy dem di découvrir ay jàmbur yoo xamante ni ñu ngi nekk à l'étranger tu vois ay américaine wala ay européenne genre mais nañ xam ne am na ñu leen jege fii nii tu te ñu ngi def ay affaires yu am solo tu et je pense que bu ñu gisee loolu dinañ xam ne it is possible tu vois war na mën a nekk ñoom aussi ñu def la même chose aussi donc parce que dama ne ñun suñu rakk yi peut-être ay modèle la ñuy manqué des fois donc dañ leen war a jox modèle yi ne leen modèle yaa ngi nii copier leen si ñoom comme ça ngeen mën a dem comme yéen tey ñu ngeen di copier ci seen i ay yaay di copier seen ay tant ñoom di copier si ñeneen donc il faut que chaîne bi warul dagg quoi donc loolu moo tax tey yi ma ne euh, présentation yi am na solo bu baax pour que ñu xam la ngeen di def nest ça marche ça marche alors dinaa leen envoyé ay café virtuel léegi nii quoi ngeen naan comme ça ngeen yeewu quoi <laughs> alors alors dañuy jàll déjà ci benn point bi nga xamante ni man je pense que euh, point bu am solo la déjà yéen farole ngeen ci sax waxtaan ngeen ci mais vous allez revenir un tout petit peu ci affaire boobu noonu euh, c'est-à-dire euh, lan moo tax yéen ngeen tàmm parce que damay gis ci femmes yu bari des fois dañ naan dañuy ragal dem ci ci scientifique yi ci affaire technologie parce que dañ naan dafa compliqué dafa jafe mais yéen lan moo leen poussé déjà ba ngeen def ay études scientifiques mais aussi après ngeen tànn def informatique bi nga xamante ni gars yu bari dañ ko ragal Thiaba. waaw pour loolu de euh, man je pense que ñun ñun de toute façon hmm. ñun suñu élèves yi élèves hmm. Sénégal yi. Hmm. genre duñ leen orienté. Mm-hmm. du ñu xam exactement ñoom suñu amee bac ba pare lu ñuy def dañ naan leen rek jàng leen mm-hmm. jàng leen jàng leen après mm-hmm. débouché bi suñu amee bac lu ñuy def peut-être dañuy xool seen papa lu mu wala seen yaay wala seen benn xarit xaritu mag genre lan la def rek ñu leen def ko te duñu xam sax débouché bi ndax dinañ am liggéey à la fin wala wala ndax dina leen neex donc euh, série scientifique yi moom gars yi bon ñooy tiital ñun rek naan dafa saf affaire yooyu mais ku nekk ak genre état d'esprit bi nga yore ndax yow sa sa cerveau atteint na genre pression scientifique wala ndax yow di nga mën a xalaat ça dépend de la personne en fait et te métier scientifique yi newul des fois newul ne scientifique rek ko war a mën a def par exemple informatique bi ma def man moom informatique ba ma nekkee lycée wala ba ma newee xale len lenn rek laa tegoon mooy informatique mooy Word Excel ta jeex na mais après ba ma duggee mhm. genre euh, bon xamoon naa ne bëggoon naa def lenn loo xam ni c'est c'est extraordinaire en fait loo xam ni sa nga def ba pare di si base yi l'informatique avant sax télécom laa bëggoon a def bon comme que c'est des métiers scientifiques télécom laa bëggoon a def mais ba ma commencé programmation en première année ma xam ni ah donc lii moo lay permettre nga am benn site wala am benn application boo xam ne après ñu ni nañ ko utiliser ah ma ni ah man bàyyi ma orienté wu fii mhm. ma nekk ci ma dugg ci mu neex ma mhm. ba tey nii moom may topp maa ngi continuer de développer di kontaan des fois des fois bëgg am ma ma ma ah <laughs> mais mhm. euh, dañuy essayer rek di jéem di jéem nank-nank avec la motivation voilà on se sent bien là-dedans donc amul fu man amul genre xanaa métier bu mu metti rek ay genre maçon peut-être moo newul pour pour jigéen parce que des fois day diis si ñoom ak affaire yooyu mais pour ce qui est intellectuel normalement jigéen war na ko mën a def donc euh, présence bi nag peut-être jigéen ñi dañuy làkkatu wala des fois leeni découragé loo mooy amuñu soutien familial des fois dañuy occupé ci tâches ménagères yi ba nga xam ne duñu am temps exactement pour concentrer wu si li war a def yokk jàng bi yokk expérience beeg affaire yooyu duñu am temps loolu rek mooy blocage wu jigéen fii si Sénégal mais à part ça métier mm. intellectuel moom toute femme peut le faire ko def quoi. Mm-hmm. voilà ça am na kenn ku bëgg wax ci même point bi aussi na na wax Franceline Anta Fatoumata. Hmm? man de man sama cas moom dafa particulier. allez vas-y vas-y man déjà ce qui m'a poussé à faire la série scientifique ah bah euh, ce qui m'a poussé à faire la série scientifique mooy que euh, man déjà de base mun naa wax ne littéraire la donc littéraire la mooy OCM. donc tout ce qui est anglais français 19 yooyu ngay am de la même sorte mat ay 20 euh, yooyu laa doon am ak yooyu no macha allah mais le souci mooy profit yi ma yoroon o CM ñoom xam nañ ne man le fait que may am ay mat 20 war naa mën a def série scientifique. léegi bi ma ñëwee ba quatrième nga xam ne da nga war a choisir entre langue ou PC. donc am ñu ma jiitu woon bi ñuy def quatrième maa ngi def cinquième donc may gis ñuy am ay cinq PC ak yooyu. donc man ma ne non non non defi <laughs> PC. di am ay cinq parce que pour man le monde diplôme bi gën a rëy BFEM la. donc je me dis que su ma defee PC en quatrième donc man kon du ma am BFEM ak yooyu noonu du ma ko def après ma def espagnol je rappel rappelle suñu prof euh, PC d'alors mu ne noo Anta dafa ma bañ moo tax bëggul jël sama série bi yooyu doon <laughs> donc ma def espagnol maa ngi def un coucou au prof du CM de waa seen yoroon ma espagnol ma def espagnol aussi di ci am de bon notes après bi ma ko defee quatrième def ko troisième ma am BFEM prof ne ma no yow bu ñu la bàyyee ci li nga bëgg nii da ngay yem nit parce que yow man nga def série fi au lieu man ma choisir no orientation yi waree génn ñoom profu sama sem ñoo dajaloo dem. Mhm. ne force je vais faire la série S. Okay. donc BFEM yi génn na jàll naa premier tour mais résultat composition génnagul ma toog ñu convoqué ma ñoom seen ndaw ñoom senior monsieur Diouf ne ma ñu ko ñëwul fekk mi ngi Cheval Diolène Ndiaye ndeke ñoom boobu ñu ngi lijjanti pour ma dem Gorée jàngee ji fa. après ma dem ñu ne non ñu bëgg mu dem Gorée les organisateurs wax leen na leen non instant bi Gorée c'est déjà parti dafa yéex a ñëw. mais mën na def série S léegi ñu ne ban moyen la man je savais pas parce que composition yi génnul après ñu xool xoolaat parce que premier bi nag dama daanu am moyen treize xaw ma quatorze. <laughs> ñu après ma xool monsieur Ndaw ne non elle a quinze vingt ne donc mën na def S war na mën a def seconde S. Hmm. ma tiit ne wa daa dinaa def seconde S pourquoi pas après heureusement biñ demee c'était S0 donc ñëpp ku defoon langue. CM hmm. ñun la ñu boole pour ñu def série es donc c'était top et que PC bi ma doon ragal. Hmm. moo nekk sama meilleure note en seconde s donc ma jël première ci ci ci ci classe ba PST ma am 18. Mhm. ñu orienté ma première S1 si kuroon bañ def S. ma toog vacance jot ma dem ça c'est sûr. <laughs> Mhm, mhm. ma dem village. ma ma la surveillant monsieur Diallo sama dojo dama Anta on t'a orienté en premier S1 ma def quoi non non non tout sauf ça man S bi accidentel ma du ma ko def mu ne si si ma ne ko doom ma ko nous sommes combien mu ne vous êtes 31 orienté ma ko du ma ko def mu ne bon je le temps mhm. tu réfléchis après tu me dix minutes après je ma ne attends 31 mhm. ñoo war a def première S1 e. mhm. xaaral ma woo ko combien de filles bon monsieur Diallo yaa combien de filles mu ne sur 31 mhm. personnes y ah huit filles yu def premier S1 et c'est la première fois Valdiodio mhm. S1 bu toll noonu ci 31 donc c'était ay vingt quinze yooyu ma ne huit filles yooyu lu tax les sept mën a def S1 et pourquoi pas man Anta ah, donc en quelque sorte ñoom ce sont <laughs> sept dames qui m'ont motivé à faire la série S1 ma faire un coucou bariwuñu y a Absatou Diallo Khadijatou Top Oumou Thiandoum Natou Touré Mariama Diallo elles mm. sont toutes de, de, de, scientifiques chevronnés ku nekk yaa ngi sa domaine ñii ay médecin leen. macha allah ñii ngi ci yeneen domaine entre ñoom ñoo ma poussé ma def sama sama série S. Mhm. après si la am sama bac. Mhm. ñëw nag université université aussi voilà ñu mhm. njëkk ma orienté pharmacie. pour man fax médecine pour man pharmacie boo fa demee jaay garab la. <laughs> maa si <laughs> ma ne non. du ma def ay ay pharmacie di toog bi jaay garab ak yooyu j'ai pas compris donc en ce moment possibilité. suñ la indee benn faculté neexu la nga demandé ñu indi la feneen après si la demandé ñu indi ma MPI j'ai fait physique informatique et boobu aussi bi ma ñëwee j'ai fait la première année après ba dem def concours école normale prof de maths parce que man sama rêve bi gënoon a ngand mooy doon prof de maths yore classe S1 di toj maths. loolu déjà quoi prof de maths quoi. <laughs> bëgg ni maths compliqué quoi. bi génn naa dañ may jël lii ak a facile lu ñu jox comme booba fraîchement yaa ngi soog am ba donc sa xel mi tëjoogul quoi te épreuve bi compliqué wul mais mm. sama surprise bu gën a résultat yi génn ma newuma sa liste d'attente <laughs> ma ne non c'est pas possible <laughs> après yàlla peut-être mi ngi may mi ngi may xaaree leneen donc ma defee deuxième année euh, sama euh, MPI mm-hmm. mm, monsieur Jamal Seck prof bi ñu yoroon euh, informatique deuxième année parce que da nga def ci base informatique et tout mm-hmm. ça mm-hmm. mu ne ma am déposé pour fii ñëw bind Excel ak wóot yi non defuma loolu de mu ne ma defal eh, euh, j'ai demandé man na ko doo ñëw ñu dem déposer mu ne noonu man na ko comme nee na nañ dem déposer nañ dem ñu ngi dem di déposer di ñaan naan yàlla buñ ñu jël boobu ci ñoon ngay xoolal non moo tax pour te man échec informatique yëpp accidentellement la laa ko defee exactement si si si si donc noonu laa dem déposer après si lañ ma jël ma dem def licence mhm. génn ci noonu ba jusqu'à présent j'ai pas regretté. Ah, man est-ce que mënoon naa def métier bu gën <laughs> informatique parce que ni ko Thiaba waxee je m'y trouve. Mhm. dama dama ciy parfois ngay def tout le temps di am ay bët mhm. day métti. mais après da ngay faay ci aussi milieu informatique mooy milieu bi nga xam ne compliqué. parce que tout le temps y a qui sont là qui sont prêts à t'aider. au-delà de ça presque l'internet est là dina la jàppale. dëgg ci nekk ci ay trois heures du matin réglé ko en fait da ngay fier si yow. ok ça c'est sûr donc pour dire que ne nit ku nekk ak destin donc man j'étais même pas censé faire la série S1. deuxièmement aussi informatique bi mosuma <laughs> mosuma ko bëgg mais boo def naa ko et que maa ngi sant yàlla regretté wu ma lu tax ces personnes là prof yooyu noonu des amis conseiller ma pour ma def peut-être am na leneen lu ñu lu ñu gisoon et tout ça. Ah, voilà en quelque sorte loolu la tout ce qui est scientifique et informatique ñooñu ñoo ma c'est extraordinaire parce que li ma mun a jàpp ci sa wax ak bu waxu caba mooy information parce que il faut que mu am rupture je pense ak li amoon bu njëkk ak li war a am li am tey ak li war a am suba quoi actuellement je pense que li ma jàng ci li ngeen wax yëpp mooy il faut que information bi di daw suñu sœur yi nekk ci suuf ñu fexe ba xamal leen li ñuy choix yi ñuy def ban répercussion lay am ëllëg ci seen avenir ak ñu am benn visibilité bu baax ci euh, choix yi ñuy def noonu quoi tu par exemple yaa ngi ko expliquer tey ñu ne la ah euh, informatique nga ne nga foog ne informatique bi ah, ça c'est seulement affaire ay euh, Word Excel tey jii nii en deux mille vingt deux je pense que war nañ toll foo xamante ni suñu rakk yi nga xamante ni ñu ngi nekk collège wala lycée. ñu am une visibilité bu leer ci lan mooy informatique ba xamante ni su leen intéressé dañ koy mën a def normalement xam lan moo leen ciy fekk suba tu vois donc du coup niveau d'information boobu je pense que nekk na loo xamante ni war nañ ci euh, góorgóorlu aussi tu vois pour que euh, que sama mu nekk jigéen ñi ak góor ñi je pense que ñëpp sax ñoo ci bokk yem mais ñu jotale leen information boobu euh, bañ bañ am ko n'est-ce pas mm-hmm. alors Fatoumata wala Francine da ngeen ci bëgg yokk benn affaire avant may jàll ci benn point bi wala. waaw xaaral mhm. man Francine ma yokk si yokk si dara. parce que man euh, c' tout à fait le contraire de Anta ak euh, ak euh, ak mhm. ça c' intéressant. Mhm. allez vas je fais la différence. ah oui. ma <laughs> faire la mais bon vu pense que je suis la seule. à ne pas faire des séries scientifiques ba pare nekk ci domaine informatique. mais yow kon yaa ngi ci sama. ça devient intéressant kon yaa ngi ci ah yaa ngi ci sama prochaine question bi sax a posé <laughs> <laughs> mm-hmm. euh, man ba ma nekkee xale. Mm-hmm. Euh, dama doon jaay crème sama yaay laa daan jàppale jaay crème. waaw donc dama aayoon ci calcul ak problème. Mm-hmm. calcul vingt laa daan am problème quarante laa daan am. macha allah euh, ba ma nekkee école primaire sœur woo sama yaay ne ko kii en fait. on voit que dafa excellente ci tout ce qui est scientifique. Mm-hmm. mais côté langue ay dictée zéro rek laa daan am. Mm-hmm. Mm-hmm. donc du euh, sama yaay ne leen euh, boo gisee mu ay ci série scientifique xam naa lu muy jaay crème a tax. xam nga dañ lay jox xaalis ngay wéccee donc da ngay def ay calcul mental. exactement vois donc du coup day day susciter ce cerveau en fait. donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moo gënoon tax ma ay ci série scientifique yi ma dem euh, Joal. Euh, def bac def sama BFEM ba ma defee BFEM ñu orienté ma série scientifique donc loolu laa bëggoon aussi mais euh, malheureusement dama nekkoon ak sama ton tonton bi nga xamante ne moo nekkoon censeur lycée bi et prof français la woon donc mu ne mu non série scientifique dafa métti demal série littéraire et cetera wax ma wax ma ne ko waa d'accord léegi damay bàyyi dama dem série scientifique ma dem def littéraire mhm. série euh, littéraire te te bon bizarrement j'étais pas trop trop top te yooyu j'étais plus bien ci côté tout ce qui est. Euh, scientifique quoi scientifique. ok donc j'ai accepté. Mm -hmm. ma dem def série euh, série scientifique. Mm -hmm. et tout ça mhm. euh, série littéraire du moins. Ouais. mais ci L2 laa nekkoon L2C bon mi scientifique mi littéraire hmm. quoi si diggante hmm. bi ñu nekk ci hmm. diggante bi donc laa nekkoon euh, sama note ma doon am euh, note euh, note scientifique yëpp da doon gande moo tax sama daan am moyenne en fait mais série littéraire yi c'était pas voilà ay moyenne dix laa daan dem onze anglais espagnol wala sous moyenne rek laa daan am donc ma am bac ba ma amee bac en l lu yàlla di def Thiès ubbi université Thiès ubbi première année laa def bac ma échoué mhm. mais heureusement ba ma échoué en fait ah euh, dama dama ne euh, comme je dis tout le temps tout tes grâce lu xew rek am na lu tax des fois da ngay am ay échec nga nekk di ko di ko jooy di ko naqar lu fekk moo gën ci yow donc vu que man dama bëggoon tout ce qui est scientifique bëgg tout ce qui est informatique te lan moo tax ma bëgg informatique benn film bu ñu naan 24 heures chrono. ah ok Chloé Obreyan xaw ma je <laughs> moo tax. informatique. ma doon imiter Chloé bu nekkee ci ordinateur ma ne waaw su ma màggee nii laa bëgg a mel. incha laa bëgg mel tu vois. et dama doon wax samay sama papa euh, euh, su ma màggee dama bëgg a doon informaticienne. nekk ingénieur liggéey Sonatel. loolu rek moo nekkoon sama rêve ma nekkee xale. Uh-huh. donc du coup ma am bac mm. euh, heureusement. Thiès ubbi Thiès bu mu ubbee mhm. euh, ñoom dañ doon jël ñu am bac L2. Mhm. di leen transformer. oui En, en, en scientifique. Si. Est-ce que tu pour rattraper un peu le. Exactement. Le truc. Donc, du coup, mm -hmm. euh, première année, je m'ai échoué. Mm -hmm. Ça m'a permis, mhm. deuxième année, je m'ai fait, je m'ai bac, tout de suite, pièce ou bi, nous orienter ma pièce. Okay. Mais là, nous m'ai orienté pièce, géographie, nous m'ai orienté au UCAD. Je m'ai non, je m'ai fait. ma ne ko non du ma ko def c'est pas ce que je veux en fait après ma dem euh, renseigner aussi école de formation yi et tout naroon euh, inscrire en en en truc juridique et cetera juste veille bu ma naroon inscrire waa Thiès woo ma ne ma orienté nañ la Thiès pour ma def informatique. j'ai sauté de joie ma voilà occasion la tey pour euh, le fait que ma bàyyi woon bañ a def série scientifique. Mhm. occasion la pour mën ma def. nga def informatique bi yoon quoi mhm. ma dem Thiès euh, def informatique et tout j'avais de très bonnes notes. Mhm. Euh, à chaque fois Thiès matière yëpp laa daan d'office première fois. donc du coup mhm. euh, suma deuxième année ma participer benn book camp bu Christelle Scharf organisé je pense que ñëpp ñu nekk si domaine tech ay ñoom Christelle Scharf si si ñëpp xam nañ ko mhm. tu vois mhm. après euh, ma nekkoon euh, deuxième ci challenge individuel ma formé sama équipe et tout créer site internet musée musée bu Thiès nekk premier premier si si ñu si groupe yi bu ñu évaluer sama groupe moo nekkoon premier tu vois ñu ñu primé ñu tout et très contente euh, voilà def li nga xamante ne nit yi ñoo koy utiliser ma ne lii naa ko defar donc tu vois sentiment boobu bu caba ak euh, ta wax léegi moo fi nekk donc bu fekkee da nga créer dara nga gis ne li nga créer nit yaa ngi koy utiliser te mu ngi am impact ça fait plaisir da ngay kontaan en fait loolu ngay ressentir rek je pense que mënoo ko am feneen si si si si ça c'est vrai tu vois mm-hmm. donc euh, voilà ah, par la suite ma defar euh, juste après ma intégré euh, musée bu euh, bu Thiès. Mhm. def volontariat la woon aussi créer leen base de données pour ñu gérer seen seen seen kii yu ñu am. seen matériel yi ñu am foofu yëpp et loolu aussi boo ko defee gis gars yi ñu koy utiliser muy dox da ngay mhm. ma continuer ba pare choisir mhm. domaine. Euh, Thiès aussi di dem di dem master UGB euh, ñu ne ma non c'est j'étais la première à quitter Thiès dem UGB def fa master. ba ma demee il se posait la question mm. est-ce que waa ay aay nañu. <laughs> je leur disais. je leur disais je vais vous prouver que waa Thiès aay nañu. je faisais maths si là-bas. Mm-hmm. donc euh, ba ma fa demee aussi def tout fekk ba may déposer sama dossier. Euh, chef de département baa ngi woon foofu donc il a regardé mes et tout mu ne secrétaire bu ko étudier ñu étudier ko accepté foofu donc moom ko nekkee aussi euh, voilà j'ai tout fait euh, jàng j'étais très focus si lu ma doon def et tout donc maa jëloon deuxième sur suñu sur suñu promo te lan moo tax jëluma première mm. anglais. <laughs> Euh, série littéraire yi tu vois. waaw je vois je donc bon noonu laa def continuer informatique. dugg ko di def li nga xamante ne gars yi ñoo ngi koy utiliser. Mm-hmm. mu ngi am impact ngay kontaan loolu rek ça vaut ça de l'or ah oui merci beaucoup Franceline je pense que jaar jaar bi am na solo trop trop trop et comme ni ma ko waxee rek lii moo mën a inspirer sunu euh, rakk yi nga xamante ni ñu ngi ci suuf parce que il faut que ñu am ay modèle alors lii mag moo nekk premier partie bi nga xamante ni euh, première partie épisode bi ñu waxtaan ci jaar jaaru suñu lion yi nii euh, dina am beneen deuxième partie nag boo xamante ni dañuy dugg ci solution yi ak lan moo tax femmes yi duñu leen gis yenn métiers yi nii lan mooy problème bi ak naka lañ ko war a a solutionner naka lañ la war a mën a joxe loxo xoolal leen wala mu leen euh, jox leen beaucoup plus de confiance ci ñoom aussi euh, pour que ñu mën a embrasser yenn métiers yi ak maanaam daal problème yi ci am ci biir yëpp donc loolu ci deuxième partie bi lay doon incha allah bañ affaire bi gudd trop donc dañuy def benn pause bu ndaw retrouver ñu ci deuxième partie bi incha allah ñu àndaat ak suñu lion yi yeggali débat bi waxtaan ci euh, yeneen mbir yu bëri ci les femmes dans la tech au Sénégal.